ak léegi pour premier point bi xam nga euh, euh, li may njëkk wax mooy que mm, kenn nekkul au-dessus des lois ngay magistrat woo ngay citoyen lambda hmm. léegi nag ce qui se passe chez les magistrats que dafa am une protection bu ñu am par rapport ak poursuite yu ñu mën a am contre ñoom dañ defal ce qu'on appelle une, euh, un privilège de juridiction. mooy hmm. magistrat kenn ko topp. ci li mu kenn ko topp ci tribunal le petit le petit tribunal d' instance tribunal de grande instance wala cour d' appel cour suprême koy toppee. d' accord léegi enrichissement illicite moom bàyyiwul kenn et donc man j'estime que bu ñu demoon ba gis un magistrat. qui s'est enrichi de manière illicite et amul benn raison buy empêcher ñu di ko topp la seule limite mooy juridiction bi koy topp du moom moo koy mën a àtte parce que ñoom dañu am privilège de juridiction parce que cour suprême ñoo ko ñooy àtte magistrat bu def infraction à la loi pénale c' comme les officiers de police judiciaire les commissaires de police tout tout dañ dañu am système de protection bu ñu def pour ñoom suñu defee infraction à la loi pénale cour suprême mais man gis naa fii ay magistrats yoo xam ne dañ leen àtte ñoo xam sax dañ leen taq parce que dañu commettre des infractions à la loi pénale mais soo c'est que nit ñi xamuñu procédure yi moo tax dañu jàpp ne xëy na bon duñ mën a dem ci justice pour topp am ay sax mais mais su fekkee ne c'est un cas avéré soo ko yóbboo Cour suprême dañuy dañuy ordonner une enquête entendre magistrat bi def nag déclencher procédure bi d'accord donc léegi beneen beneen élément bi mooy dooley procureur dooley procureur moom ci texte la mos bu ñu changé texte yi rek dooleem dina wàññeeku bu baax a baax mais en l'état actuel des textes parce que xam nga procureur mooy ni ñu ko gars yi waxee presse bi c'est le maître de poursuites. waaw moom mooy jàppalu moom mooy topp. waaw ku mel noonu nag Sénégal nit ñi dañ ko xaw a ragal dañ ko ragal quoi parce que euh, pouvoir yi am la quoi. c'est tout à fait normal koo xam ne am nga pouvoir de poursuivre une personne jàpp ko wala nga jàpp jàppalu ko tu le fait emprisonner forcément da ngay am pouvoir. bu ko juge bi nee na génn sax nga ni non damay def. appel loolu texte question de texte la que parce que texte yi moo prévoir que dans certaines matière procureur su demander mandat de dépôt à un juge d'instruction juge bi daf koy dafay délivrer obligatoirement un mandat de dépôt texte la article 139 du code de procédure pénale moom mooy mooy ak article quatre-vingt et suivant du code pénal moom la ñuy wax les les les les textes liberticides et donc ñun dans programme dañuy envisager ñu wàññi doole procureur ce programme parti parti on envisage même de mettre en place un juge des libertés de la détention waaw un juge des libertés parce que gis nañ ne au Sénégal détention préventive dafa dafa dafa dafa dafa bëri quoi. Njoxon Njaay ñu placé lu su mandat de dépôt. aussi bien chez les procureurs que chez les juges d'instruction. Mm-hmm. voilà donc ñun li ñu envisage mooy dañuy dañuy dañuy dugg dans le code pénal et de code le code de procédure pénale mm-hmm. xool tous les articles liberticides ñu dindi leen sànni ko fële pour jox au juge sa pleine liberté quoi. Mm-hmm.